moo tax daal koor yi noppalu rek mën a bàyyil ba ci kanam. waaw daanaka kenn bëgg ko de. déedéet. <laughs> di ndokkale soxna si nga xam ne bëggul ma wax turam sëñ Mbàkke mm-hmm. ci dëkk fii ci Yoof mm-hmm. ci jàpp ndaluk suñu mbokk Penda Jaxate mm-hmm. soxna si woon ba ñëw mu jébbal ñu këyitu këram ca Linguère te ca enveloppe bu mag bi def lu bari waaw ñëw maa ko def téye bii. ndeysaan est ce que loolu rëy na fay ko ko. amiin ko ko fii fay ko ko fii. ko ko yi weesoo rek mu ànd fa incha allah seeti yooyu incha allah koy defee incha allah incha allah loolu am solo lool wallaay ndeysaan <laughs> tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf loolu moom ku mel ne sëñ Saliou bég na ci ne fi ñu toll di sol seenu daal ngir lu jëmale daara ji kanam moom buñ déggee loolu seen xol sedd ci am na solo oustaz mm. euh, xam naa ne gannaaw loolu rek ma daal di tàmbalee jubbantiku di waaja a dugg ci xibaaru daara ji mm-hmm. waaye bala ma cee dugg ma ne la ana waa Kaolack waa Kaolack ñu ngi lay nuyoo mm-hmm. dégg naa xëyoon nga fa tey maa ngi nii dama agsi rek. daal di ñëw. suñu moom ma masaloon. Mhm. xëppoo ndox sol mi daal di ñëw. kon gàmm gi jeexagu ci réew mi ba tey. waaw waa Kaolack tey dañuy gàmmuwaat. Mhm. lu lañ ko tuddee. gàmmuwaat waaw. waaw lañ ko tuddee. Mhm. Eh, ña nga fa macha allah. dem naa ca Kaneen. Eh, seen. waaw jaale ji xalifa ba. tabaarkàlla jaale bi ah. Useen Imaam ba xalifa ba. sëñ Pape Souleymane. mu ngoog eh, jaale ji ko. Euh, laajte la it. ndeysaan maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. bu nu ci jógee ñu daal di ñëw euh, fële ci lew nañu seen. ndeysaan ziar moom tam alxalifa. waaw aji Ibrahima moom nga xawoon jamono yee. tabaarakallahu. ndeysaan bu nu fa jógee nag door ñëw. Euh, <laughs> Madina Baye. ndeysaan dugg ci roq yi ziar Serigne Sa. ndeysaan def fa. as waxtaan. ndeysaan ci benn télévision. daal di walbatiku. ndeysaan loolu suñu la am ñëw. loolu am na solo ana sëñ Baba Lamine gis nga ko fa. waaw gis naa ko fa. Mhm. mu ne ma ndax ndax yaa ngi fàttali kañ lañ ngi jéggi see. ndeysaan. ma ne ko xaw ma dal bi de xaw naa yàgg. ndeysaan mu ne ma booba Kër Massar la woon. ndeysaan est-ce que. boobu yaa ngi def waxtaan waaye la nga doon wax ci football mu a ko maa ngi koy fàttaliku. ndeysaan ndeysaan. voilà <laughs> gisee nañu. nuyonte nañu macha allah. ndeysaan mi ngi lay laajte. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. loolu am na solo oustaz noonu am na solo ci doxalinu réew mi daa mel ne mag ñi noonu lañ ko séddoo rek nga xam ne daa mel ne bëgguñoo bàyyi benn benn vide am jamono ju ne rek ñuy def lu koy animé ba mu dox. waaw xam nga suñu mbàkkee. Mm-hmm. football fukki nit ak benn koy def. Mm-hmm. football. ku ne poste nga yor. dëgg la de. bal bi paas sa morom. Ah, waaw kenn nit du gagné équipe de. waxoon naa ko Oustaz Alioune Guèye ca ba. ndeysaan rahmatulah aleyhi. ma ne ko. ñu ñuy wooyee boromi xam-xam ci dëkk bi. bu ñu nekkoon équipe. ñu yëg ne Oustaz Ahmed Dame Ndiaye yor na bal bi. de koy paas docteur Ahmed Lo. mu paas ko diw mu paas ko diw mu paas ko diw. léegi te nu dugal yi bii. waaye kenn mënta gagné match bi yow kese. waaw loolu mooy yëf yi dëgg la sunu mag ñi nag loolu lañ déggoon mhm. kenn ku ne na ci roq rek waaw ah booba 4 2 4 moo xew akub défenseur <laughs> ah, ak 4 2 4 ak libéro bi daal waaw waaw <laughs> loolu moo xewoon moo xewoon ci waaw waaw système la woon système de solo bu ñu daan def. mu ngoog bokkut ak 4 4 2 bi ñuy ak yooyu. léegi kay léegi <laughs> moom nu lañ ah, léegi nu lañ def 4 3 3 4 4 3 bi nga bëgg a génnee. waaw xam nga mag bi ñu defoon suñu mbàkke. Eh. mooy kon su boobaa. Mm-hmm. défense bi dana dëgër. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. latéraux yi dinañ yéeg. unies yi daay centré. te kon ñëppay gañe dëgg la moo tax jamono jooju la diine ji gënoon a am mhm. noyyi mhm. gënoon a yaatu mhm. gënoon a jëm ci kanam ak yu bëree bari ndax ku ci nekk rek la nga nekk da nga yëg ne sa morom ca la nekk waaw la nga yëg da nga ne sa morom ca la nekk ñu mën di joxalante yëf yi muy muy jàll loolu moo amoon tabarkàlla ci seen diggante yal yàlla fayal ñu amiin yaa rabbal alamin tabarkàlla amiin yaa am na solo ci suñu mbindlu boobu nga xam ne moo nekk nuyoo yi ak sa xëy mu moomu nga demoon fële ca Kaolack dëkkub Cheikh al Islam Aji Ibrahima Niass ko bokkal ci taxawaayu gàmmuwaat bu am solo boobu nga xam ne moo fay am tabarkàlla oustaz li may waaw jéggalu ndax mhm. jotaay bu bu yaatu woon mm-hmm. waroon ñoo dem ba ca euh, kër imaam euh, Alioune Badara Ndaw ndeysaan waaye waroon nañoo dem ba ca kër imaam mm-hmm. euh, Dieye ndeysaan waaw Oustaz Mouhamed Dieye Oustaz Mouhamed Dieye ñu ñëpp ak ñoom faam war nañu dem ñoom ñëpp ñu seet leen waaye xam nga rek lu jëw joxu joxu ndeysaan ak kër kii suñu maire ba moom it yàlla na ko yàlla yërëm mooy maami maami maître Iba Der mais ca Louga. waaw mu nga waaw <laughs> ndeysaan moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. auditeur jotaay bi la ndeysaan jërëjëf. bàjjan mari jaag bàjjan mari jaag ndeysaan bàjjan mari jaag mu baax mi yal na ko yàlla yërëm allahumma amiin ndeysaan moom it ku la bëggoon la <laughs> ndeysaan kay moom tubarkal la <laughs> jërëjëf oustaz am na solo kon xam naa ni may def rek daal di sóobu ci lef mi ndax tey daa mel ne li ma tiim ci ay xibaari daara bëgg koo faram-fàccee eh, taxu koo néew lool mm-hmm. ma doore ko ci gàmmu gi ñu génne mm-hmm. mm, oustaz ma loon wax ne la gàmmu lan lañ ci jànge gàmmu gi nga xam ne noppi nañ ci ba waroon koo defal bilan mm-hmm. di wax ne lan lañ ci jànge loo may wax jërëjëf ci jànge mooy kii nu yàlla yónnee sallallahu alayhi wa lil alamina wallaahi sax la mhm. ci mbindee fi day feeñ ci gàmmu mhm. borom sar di am luñ ci am mhm. taxankat yi am luñ ci am sàmm si ñoom sàmm daral am luñ ci am transporteur yi am luñ ci am yépp ci benn bisam boobu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina ndeysaan est jooju suñ mbàkkee xeeñ ci côté yëpp ñi gàmmu jeeg ñi gàmmu ji wut ak tabarkalla ak fu ne fa nga koy defee boo seetloo sa bopp rek xam ne am nga ci lool lii ngeen ji mbindeef mi yàlla yónni woon ci noonu moo ko ëndaale loolu day feeñ ci gàmmu du dëgg feeñ na ci gàmmu it euh, sëñ Mbàkke euh, lu am solo loolu bi mu bi mu weesoo mm-hmm. euh, muy xeet wi daa war a nekk benn ñu ngi bokk yi def lenn mhm. ki koy defal di kenn mhm. kon lu xeet wi gën a nekk benn rek mhm. ñu gën koo xeeb dëgg ñaari tomb bi daal yu am am solo la ci ci wàllu gàmm euh, ci wàllu jikko yonent bi ci wàllu jeexantal yi gàmm war def ci ñun ba ñu demee ba jóge fa di ñibbi kenn ku nekk du ca yóbbaale sa kër mm-hmm. tabarakallahu mm-hmm. am na solo am na solo lool oustaz ci jeexital yooyu nga xam ne moom nga ci joxoñ yal nañ ko comprendre noonu récolté ko noonu ba déwén gàmm gi bari na lool ay jotaay yu fa am bari na lool ay kàddu yu fa jóg dafa mel ne amaatoon nañ sens pour jox daara ji temps d'antenne bu doy man nag waaw euh, am na fa benn genn kàddu gu ma daf ma dugg ba ma liw mm-hmm. ndeysaan Pape Pape waaw ndeysaan loolu na ko yàlla yokk wér. Hmm, amiin parole. <laughs> porte parole day wax ba agsi ci misaal benn boxeur. Hmm, waaw waaw defe naa. Mike Tyson Mike Tyson waaw. mu tuub dugg ci lislaam wallaay oustaz wax ju xóot la. tuddi ba fa Muhammad. mu ne di box nag. Hmm. te am victoire yam daan am. ay mbokkam ne ko sa diine ji la. waaw sa tuub gee la ko teg sa tuub gee la ko teg. <laughs> jàpp moom da koy jàpp ne kon defar la na tubb si waat waaye wax jëm leen wax daw sama yaram mooy leen bi ma tu wax ngeen dëgg bi ma tuubagut su may dóor nit bokkut ak bi ma tuubee su may dóor nit mu ne mu ne bu njëkk bi ma tuubagut damaa nite wutoon mu tax su may dóor nit damay jàpp ne miir lay dóor wala nangam allahu akbar mu ne ma duggee ci diini ji nag su ma xàcce sama loxo bi di ko dóor nit mm-hmm. dama yëg ne. waaw euh, kii may dóor nii. ndeysaan wala xadd karam naa bani aadama la. allahu akbar. même su fekkee bokkuñu dina ji ma nekk. <laughs> nga suñ bàkk loolu. su hmm. ma toog damaa liw. wax ji dafa rëy oustaz. non. damaa liw. ndeysaan. te xoolal kooku nga xam ne fi nag bu doon ñun dañ naan tuubeen la. Hmm. wala ñu naan gan la ci. Hmm. mais xoolal yëg-yëgam bu am solo boobu oustaz Mbacke. lu sore la ci tubaarkàlla keroog bi kàddu gi jógee nga xam ne wax ju xóot la ci ni lislaam war a def nit ah. waaw ki ci bokkagut bu demee ba bokk ni mu ko li mu ko war a defal nga xam ne kon diine yëg-yëg la oustaz waaw ndax nee na su ma demee bay bëgg a dóor lislaam ay laxasu ci sama loxo bi laa <laughs> ilaha illallah ki ne moom daf ci juddu waaw gars yi dañuy dóor muy daanu rek ñuy bàkku <laughs> ah. dafa laxee rek te loolu ci penc mi def ci valable. ndeysaan ca marché ba. Mhm. ca école ba. Mhm. ci ci ci fu ne. ndeysaan daf ci war a valable. wax jooju kay oustaz doy na fëkk gàmmu doy na fëkk gàmm wax jooju rek doy na doy na sëkk gàmm sëñ Mbàkke dëgg la yëg-yëg gi boobu mu am mm-hmm. ak settantal googu génneeku gi mm-hmm. ah loolu doy na doy na sëkk wallaay wallaay wallaay am na solo am na solo lool eh. <laughs> wax dëgg yàlla ñoom ñëpp seen am na solo waaye moom tamit fi muy dóor baax na <laughs> waaw fi muy dóor daal moom <laughs> baax na ndeysaan euh, tubarkàlla noonu lañ koy ndokkeele ak xalifa bi itam moom itam def na ay ay jotaay yu baree bari yoo xamante ne itam wax jum wax rek bari na ci yoo xam ne manees na cee jànge lu baree bari waaw moom it keroog bi ñu gisee ci cérémonie bi. mu ne mhm. waaw xanaa xanaa ubbital bur du ñëwoo. ndeysaan mu ne ko maa nga woon ca jàkk ja. Mhm. mu ne ah, da ngaa guddee reer. ndeysaan <laughs> mu ne ko déedéet sa kër sax laa reere. ndeysaan waaye boo ñëwee bu ñu la fii rek. foofu rek ngay toog. Mhm. waaw mhm. loolu moo moo nu ko jàngal daaw ji. Mhm. waaw ba ñëwee toog tam toog ci buntu ba. tam toog ci buntu ba moo nu ko jàngal. moo tax bu ñu ñëwee dañuy toog rek bëgguñoo jéggat di dem ca ñoom. la pour nu gis nu. dëgg la bëgguñoo waaxu nangam. bu ñu toogal fii rek foofu rek la ñuy toog waaw waaye daal nee naa ko ñëw naa mu ne ndax ubbital burda tëjtal burda gàmm. yëpp bëgg nañu incha allah di ko fekkee. am na solo yàlla na ko yàgg fekkee. amiin yaa rabbal may jàngatit gàmmu gi bala maa dugg ci politique ak actualité beneen bi jëm ci jeneen kii bi ma jàngat li nga xam ne daa rajee ko moomoon ba noppi mm-hmm. oustaz mooy jëmmi cérémonie officielle mm-hmm. moom laa bëgg nga jàngatal ma ko cérémonie officielle moom oustaz maanaam boo boo ma ko doon nattal maanaam mi mu am fi ne moom ndax am na njariñ bu fekkee am na njariñ lan mooy ay njariñam euh, ci ba muy tàmbali léegi mm-hmm. amoon na njariñ lu bari booba ku jóge ci état ak foo mën a jóge boo ñëwee doo am kàddu mhm. kenn dawul am kàddu mhm. léegi nag kàddu ya dafa soppeeku mhm. ñi nga xam ne ñooy ñëw léegi dañuy ñëw wut si temps d'antenne boo xam ne bii léeg-léeg li ñuy wax ci gàmmu li ñuy wax ci discours ba léeg-léeg mën naa wuuteeg la fay xew dëgg ñoom nañ ko wax rek parce que temps bi ñoom ñoo ko moom ko defee euh, ñu wax jox leen ñu wax jox leen ñu wax tontu leen waaye bu njëkk bi ñuy tàmbali di def cérémonie xëy na ba sax tudd toon cérémonie officielle xëy na tudd ko woon waaye daal bu njëkk da ngay ñëw ñu wax la ñun ñëpp ñu ànd dem ñibbi jëf ji mhm. waaw looloo amoon looloo amoon nga xam ne benn benn sens la woon ngir ñu mën a waxaale ñëpp genn wax joo xam ne ñëpp a koy jàppandoo ñëpp a koy jàppandoo dem jëfe ji ko ba déwén jeex na ba déwén ndeysaan kenn ku nekk mel ni xutba bu jumaa la doon rek mhm. xutba bu ilimaan bu ne in alhamdulilah hmm. ba ma ne ko salaam hmm. kenn du ci jël kàddu kenn du jox leen ku nekk day ñibbi rek jéem a jëfe hmm. yan cay moytu jéem ko moytu ku ne moytu ko waaye léegi nag affaire boobu day day day day day tàmbali di wàññeeku day day day dañ ndax léeg leen ñu jox la nga nga wax li ngay wax mën naa am léeg-léeg du am du am rapport ak jotaay bi am rapport ak jotaay bi. Mm-hmm. wala bu amee mën ngaa gëj sa ja daara ja ba noppi. Mm-hmm. ñëw indi sa waaraate. <laughs> Eh, wala yu demee nekk yooyu. loolu de moo xaw a doy waar moom waaw tabarkàlla mm-hmm. léeg-léeg nu dégg yu mel waaw te boo gëj ci daar ji. damm yàq da lay yomb. dëgg la de wane ne xamoon naa ci dara mën naa ñàkk. mbaa yàqu mas <laughs> am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tomb boobu ak gàmm gi kon moom bu doon gàmm ñëwoon na daal dañuy wax ne moom jeex na. ndeysaan xaw ma nag liñ ci doon jàngee jeex na am déet waaye gàmm gi moom féete na boor oustaz waaw féete na boor waaye bis na ko tey mm-hmm. ba demee Njaasaan Njaasaan ndeysaan eh, tey janga ca mm-hmm. ci lu wér waaw tabarkalla léegi la cérémonie ba jeex dëgg la alxalifa wax ne mm-hmm. eh, réseaux sociaux yi nañ leen moytu te xoolaat leen wax na ci loolu waaw wax na dëgg waaw wax na dëgg nee kàddu yi ci daw am na ci yoo xam ne yi jëkku te war naa jëkk am na ci yiw te war naa yiw nan ko seet te itam ñi jiite réew mi euh, yërëm ñi nga xam ne ñoom lañ jiite. Mhm. tabarkàlla kàddu am la foofu. ndeysaan yal na ko yàlla fay. allahumma amiin eh, loolu baax na loolu oustaz. man na wax di yàlla damay kontaan loolu su ma déggee ci ñiy wax li xew. waaw li nga xam ne nit ñaa ngi koy dund tam man cee ami njariñ man cee ami lor mm-hmm. buñ ci déggee kilifa mu wax ci rek dana attirer seen attaque léegi de ñu ngi moom tubaarkàlla waaye buñ mel ni ku ko yëgut ignoré ko rek ñu jëfandikoo ko neen geneen anam gu baax léegi de ñu ngi ci tubaarkàlla te oustaz anam guñ mën a liggéeyale yàlla la waaye nag nit mën na cee sànku ba am ci bàkkaar yu bari ci lu wér mm-hmm. ci lu wér mm-hmm. am na solo kon ñu ngi ndokkeel waa Njaasaan yëpp ak mboolem barab boo xam ne tàntaloon nañ fa yonent bi ci weer wi ak yeneen gàmm yi ne ci kanam yëpp yàlla nañ bokk jariñoo wallaay ndeysaan wa amun suma charun suma yow ma wallaay rek nekk ca rek kon <laughs> mi ngoog euh, foofu laay teg sama baaraam ci tomb boobu daal di dugg ci politique bi ba ci kanam ma ñëwaat ci loolu mhm. euh, tomb politique bi oustaz dama koy tàmbalee ci euh, maa ngi koy tudde politique waaye mbirum àtte la mhm. boo xam ne sax dégg nañ ci sax ay wax yoo xam ne jib na ci ci mhm. jamonoy gàmmu gi ndax léegi itam jotaay yooyu itam benn tribune lay doon boo xam ne liy xew ci penc mi faw mu law ba euh, ba mu dégg ko ci kàddu yi. waaw muy lu jëm ci mbirum xalifa Sall. mi nga xam ne moo nekk maire Dakar. Mm-hmm. Euh, oustaz ci ay bis gi euh, su ma juumut ca samedi ja mhm. wala dimanche ja ca lañ daje woon ci assemblée nationale mhm. ngir ne dañuy daal di summi daal mbubam mi nga xam ne moom lañ ko solal mhm. te mooy mbubum député euh, loolu nag daje nañ ba def nañ ko ba noppi <laughs> xam naa jàngatoon nañ ko ay bis bële ba nga waxoon ma ne ma gannaaw ne woon nañ doonu ko ba ba ñuy installé nekku ca woon dajewaat di ko summi moom lu naqaree layal lay doon waaye oustaz noo jàngati mbirum xalifa bi nga toppee mbir mi jéego yi nga xam ne dolliku na ci boobaak léegi waaw jërëjëf ci laaj bu am solo bi li dolli ko ci mbir mi mooy mbirum nan am lu nu joxe mm-hmm. mbirum nan am lu nu joxe mu bàyyi ko bàyyi néggandiku mm-hmm. te loolu ñu joxe mm-hmm. su fekkee dem nañu ba ñu ne liñ koy wax du moom ñu delloo ko lam joxe woon su dee moom xëy na ñu jël ah, loolu ca tàmbali ba nangu woon ko danoon gën a yomb dem ba mu yàgg nga ne nañ ko nangu. Hmm. boobu dafa yo boobu la yomboon. waaye boobu dafa mel ne moom nanguwul woon a joxe. boobu nag la yomboon. Hmm. parce que boo ko bañee ba mu yàgg nga nangu ko. Hmm. dafay am luy des ci ginnaaw ci ay point point yi nga xam ne mën nga ko am fële. Hmm. soo ñëw fi da koy ñàkk. day dem day mel ne dañ laa jekku ngay wut benn. ngay wut benn max ngay wut benn porte de sortie. su boobaa waaw su boobaa day day xaw a jafee layal. Hmm. benn ñaaral ba su fekkee da ngaa bëgg ne am naa kër ci cël ma xam mbaaxul nañ ko ci boole nangam nangam muñ ko ci boole ba am buñ la ko gàntalee da am problème. Hmm. ba doon ci bees bees ba nag mën naa am yooyu yëpp mën na cee ñàkk mhm. waaw yooyu yëpp mën na ci ñàkk dëgg la eh, yàlla naal teg gi loxoom mhm. waaye fal tabaarkalla mhm. waaye nag lu métti métti la dafa mel ne Oustaz mbir mu naqaree eh, mu yéeme daal ci ni nga xamante ne noonu lay yokkoo nga xam ne bis bu set bu ñu seetlu dañuy mel ne ñaar a ku seq bu doon ab xeex la dañ naan xeexu politique la ak xeexu àtte mm-hmm. mm, euh, te bu ñu seetlu dañuy mel ne àtte bi day bëgg a dugganteeg politique bi ba jaxasoo ba doo leen mën a séparé te loolu itam bu amee cim réew baa du yéeme euh, xam nga sunum réew bi na la kii mooy ministre de l'intérieur mm. moom daa am ko ko yilif mm-hmm. gardien la gardien la constitution mm-hmm. moo yilif ki yor constitution bi waaw ñun suñu réew noonu lañ ko nuñ ko ràbbee moo tax léeg da ngay jàpp ne waaw mbaa du kii li muy def dañ ko koy def loo mhm. mhm. loolu loolu léeg-léeg mu dugg ci xel ni ñi mhm. mbaa du kii li muy def dañ ko koy def loo mais li nga xam ne moo yor tëgg li lépp daal waaw mooy wax def leen def leen bàyyi bu leen def bàyyi leen bu leen bàyyi léeg-léeg ñu ne demeewut noonu ñun ñoom ñu indépendant lañ donc ñu libre lañ léeg-léeg am ñu ne déedéet demeewut noonu de ndax day naqaree layal day naqaree layal euh, waaw euh, ndax bu fekkee dañu lay dañ naan anakaan moo rey petax mi ñu seen sa bopp bi takk ay dunq hmm. bala ngaa set mu yàgg dëgg la de te loolu lay nuru te loolu lay nuru <laughs> am na solo condition boobu nga wax oustaz ci mbir mi lu ci am solo la hmm. euh, daanaka mooy coppat gi nga xam ne moo ci amaat ci dossier bi waaye lu ne yàgg nañ koo dégg xanaa li ci beesaat mooy rek euh, euh, dindi mbalaanum mbalaanum kiiraayam hmm. teewut mu nekk ab député waaye mbalaan mi nga xam ne ku nekkub député da lay yiir ba duñ la mën a topp ci yoon moom lañ doon summi summi nañ ko nag moomu ay mbokkam nee nañ dajale nañ ak i xaritam ak i am di jàmmam ba indi condition bu tolloog bi ñu leen laajoon waaye oustaz daa mel ne li muy xeeñ mooy ñu koo jël ci gàntal ko ci daal bu ñu sañoon xaalis lañ leen di indil waaye kenn du leen garantel ay immeuble ak ay ay kenn xamut loolu lay jafe-jafe <laughs> ah waaye ñoom it duñ jël rek oustaz nag bu dee condition condition rek la te bàyyi bu dee ci tàmbali ba doon gànt lii du yomb. bu dee ci fii nag. bu doon bañ tàmbalee rek dafa gaaral lii. ne sama position yi nii. mën naa waaw su boobaa te la du gën a yomb ci lii. Mhm. ndax euh, nit li may wax ne. su mhm. euh, journaliste bu la laajee laaj. Mhm. boo yàggee ca laaj ba. mu préparé beneen. dëgg la waaw. bu tontu lu yàggee. bu tontu lu yàggee bu tontu lu yàggee lay am. ne ci tontu ba rek di wax ko wax. day préparé beneen booy noppi mun la ko copp. <laughs> waaw ndeysaan waaye soo ko mun la ko coppee nga ne ko coppee ne cell. Hmm. ñu la xewoon diggante Moussa ak Firawna. Hmm. balaa noppi rek mu jeex yëf yi itam noonu la. dëgg la keroog ba ñu teel ba ñu doon ah waaw kon nag nañ def lii. Hmm. yëkk ci loolee. un milliard huit cent millions. <laughs> teg ci seen loxo. man naa moo doon gën a yomb a layal. moo doon gën a yomb génn ci fi nga xam ne fi lañ ci toll. <laughs> waaw tabaarkalla ndax at tubaab moom bu ko neexee ne la. xaaj bi ma jox nii bëgg ma ay cinq mille ay dix mille la bëgg mmh. Mmh. loolu de moo tax it ay mbiram daal yéeme na <laughs> léeg-léeg boo koy xool ba mu yàgg baa du nuroog misaal moom nga daan misaal ci bukki baak mmh, ak bëy wa oh, nga xam ne gannaaw daal damaa dogu ci bu fekkee noonu la demee damaa ah. dogu ci tëj la ba nga xamante ne doo nekk candidat loo indi itam danaa indi leneen rek ah. nañ ca dem. en tout cas loolu bu ki waxoon bee <laughs> en tout cas doy na waar. Oustaz mbirum mbirum xalifaa ngi noonu moom itam wax dëgg yàlla xaw naa xumb lool ci penc mi. waaw donte sax yëngu-yëngu yi ñu ci doon xaar dëgg dëgg demeewut noonu. tax na keroog ba ñu waree def euh, sumi mbubam mi barab boobu gaw nañ ko ci lépp lu ñu mën ci wàllu sécurité. waaye daal mujj na sedd guyu yàlla na wéy di sedde noonu rek. te itam moom it ñu moom it ñu yërëm ko nag. Ah. réew mi de loolu moo ñu <laughs> réew mi suñu mbàkke stabilité bi ci war a am moo ci war a am. ndeysaan mu ne dégg coow li dakk ñu liggéey dem waaw ñu liggéey dem dafa soxla dégg dégg waaw oustaz lan mooy maye dégg ndax itam ndax kilifaay dox ci dégg wala population bay jékki-jékki dox ci lu lay maye dégg mooy ñi jiite mm-hmm. yi ëpp ci dégg ñoom lay jóge mm. suñ mbàkkee mm. boo nekkee sa kër mm. léeg-léeg nga séen lol ci kër gi la nekk mm-hmm. Mm-hmm. boo jëlaliwut mhm. loola noonee mën naa màgg ba def leneen dëgg la dëgg la ku la dàq jëlale mhm. dàq laa jéggale mhm. moo la gën a dal kër dëgg waaw ku la dàq jéggale dàq laa jëlale moo la gën a dal kër nit day gis ci këram lool bu ca waxee mën naa dañ gaa waaye mën naa dañ neneen waaye boo jëlalee loola am na fu mën a jaar ba dañ loolu kon dégg googu foofu lay déparé su su réew ne dégg rek ñu commencé liggéey dem ci kanam su bàkkee fi ne di xalaat nag nu def ñun ba ba mu dox xam nga maa wax keroog suñu gàmm gi sama projet bi ma amoon pour def waaw xam joxoon na la waaw projet bu am euh, tey ci ban ma joxaat la beneen tey mhm, <laughs> dégg sunu kaso yi ni mu feese. waaw. mënoon naa wàññiku. ak a fees ustaas. ba mu ëpp ba ñuy tabaxaat te gars yi yàgg. ba ñuy tabaxaat. xam nga sax bu doon ustaas ña ko feesal baal ma bala ngaa ñëw ci procès bu doon ña ko feesal dañ leen a àtte ba noppi tëj leen mu door a fees. nga ne waaw waaye ña fa dugg te xamaguñ luñ leen war a wax ba noppi ñu feesal ko dafa metti gis nga chinois. Hmm. bëriwuñ ay kaso. Hmm. luñ koy de lu tax ñoom dañoo jub wala. nit ki déedéet nit nga yóbbu ca kaso ba ne ko fa raw. moom hmm. lu mu xanaa non daanaka gannaaw bi ñu ko pinee xañ koy xam rek mu wéet waaye daanaka moom bokkatul ci société bi. léegi tey bu fekkoon. Hmm. cil ma xambaakool tey ba cekkeen. Hmm. njóobeen sàmba laam hmm. duy sangu fu ci nekk dangaa dem ci dëkk ma am lu war a mat treize forage wala lu ko jege ndox may xeb-xeb yi ku tooñ genn tooñ ñu bu la fa nga bayyi nga dem bayyi ceeb fële nga dem bayyi ceeb wala nga bay kaani mais oustaz loolu droit de l'homme da ciy wax de parce que itam nit ki nga jàpp di ko liggéey loo noonu te laa jëm si hmm. liggéey boobu muy liggéey hmm. paree dañ koy xaaj ñetti cër bi moom mi doon liggéey moo koy moom benn bi moom mi doon liggéey moo koy moom hmm. ñaar ci def ñu sàkkal ko pexe moom bu jógee ca loolu muy liggéey loola ñuy teg ci loxoom te sàmmal ko ko xaw ma kii dugg kaso waay doon. dana fa jëlee métier jëlee fa départ. jeex na hmm, loolu de am na solo. kaso yi widd wàññeeku. dëgg la de tey. ba pare nag réew mi suqali koo ci. Hmm, hmm, gone yi dem bitim réew toog. lii bi gii kenn du fa duggati. sax dafa mel ni nga xam ni moo nekkoon sax rolu kaso booy xool ndax kaso comme dañ laa dañoo wax ne la dañ lay arrêté ba pare corrigé la maanaam jubbanti la ci yi nga defoon. yu a jóge say jikko gën ba. mu la mën a dugal rek nga ne la de ñun la muñal ndax Yusufa duggoon na <laughs> waaye moom mu duggee kaso ba mu génnee pale la jëm. ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw parce que li ko dugal bokkut ak léeg-léeg du lay mhm. dugal gars yi. Mhm. dugg ni day wuute. dugg ni day wuute. waaye ñu leen di dugal am nañ ci rôle oustaz. daanaka. rol bu bi ñu yor ñoom. Mhm. moo gën a rëy loolu bu keneen di yor ci loolu. xam nga ne bu ñu waxee am néeg bu def lu mat téeméeri nit ak nàngam. loolu ku koy dégg sax danaan ndax loolu xaj na ci bopp bopp nit néeg boo xam ne lu mat téeméeri nit ak ñoo cay fanaan. waaw ñu néew doole féete waaw ñu am doole kaw. léegi ab kaso bu ñu waxee ne def na lu mat nàngami junni nit ñooñu état war leen di jox añ reer ndékki. te waroon kenn ku nekk hmm? sa néeg wala boog minimum ñaar ñu nekk seen néeg. est nga xam ne bu ñu xoolee nee nañ li ñu dépassé ci kaso yi maanaam budget bi day mat 4 milliards maanaam ci at mi 4 milliards. seet lool. ah oustaz loolu de moom doy na waar. a te nag oustaz ni ngeen maanaam <laughs> yéen sax laay joxoñ ni gaa garaawale yàmbaak yooyu nga xam <laughs> baat bi nag noonu la. nga xamante ne buñ ci nit ab da ngay gis koo xam ne euh, a yóbbu euh, euh, te da te daanaka libre bu yàmbaa lañ ko jàppe te kooku mënoon nañ koo corriger corriger bu yàmba maay oustaz groupe noonu. ñu ko defee crime noonu te romb ko yor sàngara waaw oustaz nag waxal ci lii nag tey moom fi nga dugg c'est bon. <laughs> waaw sàngara moom bàyyi nañ ko nit ki naan di jàng jàng di toj. paara ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy def. kee ñun ñu criminalisé ko kële kële ñun moom. ndeysaan euh, léegi romb jënaay mu tàj ko su mbedd mi di ngi dof loom déedéet waaye sàngara de moom waaye di loona ñu bari. waa boo ci góoxa benn góox rek tabarkàlla adduna tukki na bañ <laughs> wële nga ko góoxaat. <laughs> doy na waar de ba pare gars yi fees fa dellu oustaz rek ci loolu ñu bàyyi noonu. donc yooyu penc bi la ci war a mm-hmm. ah mm-hmm. def ci indi benn projet de société mm-hmm. mooy nu ñu def ba yi ñu ci nekk génn sëñ Mbàkke nun suuf si ñu am ci ci Sénégal lu ñu koy doyee nag léegi ah bari na de ak ñoo bari suuf ñu ngi Dakar ñun ñëpp di xat-xatloo am nañ suuf am jant am ndox jeex na ñu nekk Dakar ñu ñëpp yi xat-xatloo rek càllee nga ne yàng duy sangul danga yàng tay ba cekkeen njolofeen mm-hmm. mm-hmm. ci la ma xam baakool mm-hmm. yow boo fi départ jëm jëm ka jëm jëm jëm jëm jëm Louga wala nga départ fi jëm Jurbel mm. li ngay romb ci àll bu ne mer wallaay waaye du nga koy exploité daka bari <laughs> ah ala ku jàpp ci kaso bi dañ naan kii travaux forcés la waaw waaw travaux forcés boobu lu muy jur <laughs> dañ koy baral ay mbedd képp nañ ko bayloo mu mhm. am ca état bi am ca waalo gii di li fi ne ci suuf ak ceeb mën a bay loo xam ne léegi tey ñu bàyyi ceeb bi jóge bitim réew di ñëw te mbay yooyu kat du mbayum coono réglé na problème bi du mbay jenn coono yi. Mhm. waaw loolu sax sax xam naa dañoo joxoon sax ñi ci kaso yi ngir bëgg solution. nga xam ne dana nekk ab nooflaay ci ñoom ku ko dégg. te kiw day jàpp ne day mel ne lu soxor. Mhm. ndax nañ leen génnee liggéey loo leen. waaw ndekete dañ leen a dimbali. ndax ndax tëraay bu mu fay tëdd. te doon ponkal mu dese doole wala boog nañ ma baal ci baat boobu te doon ndaw lu dese doole. dese kàttan mën a liggéeyi. Mhm. Eh, ba pare ñu jël ko tëral ko ay at yoo xam ne bu génnee loxoy kese lay ñibbee. Ah. Eh, ba pare métier moom doon def mën na koo fàtte. te temps bi du ko xaar. te temps bi du ko xaar day nekk mag xam nga fii ci camp pénal euh, dégg naa fi koo xamante ne daanaka tëddagul na fi juróom-ñaari at wala juróom-ñett. waaw war a defee yeneen juróom-ñaar. nga xam ne kon kooku bu dajalee dundam gi yëpp daanaka lim. fukki at juróom def na ko ci kaso. nga xam ne loolu am njàngum lëm la. bu doon koy jàng tàmbali ca fa école jàngalee ba ba muy noppi. daanaka am njàng la njàngum métier la. njàngum xam-xam la wutum xaalis la. bu doon koy sàmm am na am na. am na gétt lu mu doon def am na gétt. très bu doon koy bay am nay millions. bu doon koy commerce noonu. Hmm. bu doon koy jàng am nay diplôme. Hmm. mu tëdd rek. ndeysaan tëdd rek kon loolu war nañ cee wax. war nañ ci wax Mbàkke. message yi ma dégg nga jàmbat ko nii yëpp suñu njiit yi nga xam ne nag ñoom la ñu fal. ñoom ñu ne dañoo jàng ne ñu defar seen i ñëw gaaral ko. ñu wateel leen bañ amee indépendance ba léegi feebar yi nekk ak ñun ñu bàyyi ko di dem ak ñoom ñoom it ñuy dem ak ñëw rek. ñu naan leen woy président di leen escorté. xanaa ñoom amuñu benn vision ci loolu nag. mu lax toujours ne la. Hmm. dafa am ak engagement politique. Hmm. engagement politique mooy ni ci nit ki. Hmm. bët bu set mu génne lu bees. ndeysaan lu am solo la. bët bu set. Hmm. génne lu bees di créer ay yëf yu jëmale réew mi kanam waaw waaw. ministre bi jàppale ko ci yëf yi. dëgg la dëgg la. député ni ay ca. kott kott yoll yoll. député ñoo toog mu yàgg ñu woote. ñëw ne dañoo bëgg a wax ci kaso yi. xanaa du suñu yii de. waaw waaw ñoo ko hmm. waaw demal dinaa ñëw ci ñoom député day dëpp mbaa buy <laughs> wax dëgg yàlla bu dëpp hmm. mu dëpp waaye bu dippi jotee mu dippi hmm. jékki-jékki woote daal di indi benn yëf teg kaso yi lañ bëgg a wax nañ def nii ndax ñu génn ci circulation bi lañ bëgg ñu def nii ndax ñu génn ci ah euh, sécurité bi lañ bëgg def nii ndax ñu génn ci et cetera et cetera dëgg la bu ko defee ñu génn jàmm na ñooy dëgg la dëgg la loolu loolu ko am engagement wu politique yaa koy def mhm. nga xam ne deuxième mandat ak premier mandat nga yemale képp mhm. képp mhm. ndeysaan dëgg la lu am solo la kon daal engagement politique boobu oustaz moo def ci ñi nga xam ne dañuy politique am engagement wu defar dara gannaaw ñun fexe nañ nag ba teg leen ci condition yoo xam ne war nañoo mën a xalaat li nga soxla lépp jox nañ la ko bàyyee la ak suñ bopp nag di la wattu booy nelaw ak yëpp comme ni ma ko waxee ci fajar xanaa nag war ngaa mën a xalaat nag di carrière yu bees nag di am yooyu taxawal am na solo de ah ca dëgg dëgg dégg naa la ci dégg nga wax ci am solo am na am na solo de ndeysaan bilaay am na solo am na solo waaye hmm. ba léegi hmm. nu nekk nii rek hmm. doy na waar de c'est tout waaw <laughs> ndeysaan tey de oustaz xam naa xibaaru daara ji tomb yu bari suñ kilifa yooyu lay soxal ah. ndax euh, ni actualité bi tëddee moo ko waral mhm. ministre yooyu nga tudd nga xam ne ginnaaw bi ñu falee président mooy tànn ñu koy jàppale ci liggéey bi ñu ko dénk mhm. am kum teg ci seen kanam mhm. jamono ji nekkee ci aj gi ci la euh, ci lañ waxoon ne premier ministre démissionné na mhm. gannaaw ba ñu ne président dénkaan na ko yëf yi mhm. te ñaare nag bu ñu la falee pal gu yees ba nga nommé si gouvernement ba noppi da ñëw wax fi nga bëgg jëm ñu koy wax déclaration politique générale mhm. def na ko nag moom ci biir ay bis gii bërki démb yendu ca assemblée ba ba ngoon jot ngir di wax li mu bëgg a def ak fa mu bëgg a yóbbu réew mi sax noo jàngatee kendalam loolu euh, suñ Mbàkke hmm. jàngoon nga bu Idrissa Seck ba. wallaay ndeysaan ba dem ci guddi rek seetaan naa ko. du ma ko fàtteeti. wallaay biig <laughs> rek maa ngi koy xool. bu bu bu Mbaye naan mbay <laughs> ak Abdou Mbaye neexi tubaab neexi tubaab lañ koy wooyee. <laughs> ndeysaan dégg nga waaw. gis nga. ndeysaan. Euh, mm-hmm. ba ñu koy defloo. Mm-hmm. Euh, Aboubacar Siddiq. ndeysaan. radiyallahu wallaay amul amu ci cinq minutes wallaay wallaay seet ba may xool laa ne gars yi aayuñu jeex na <laughs> cinq minutes la def politique générale waaw xanaa amul woon député yu ko posé ñii ñii onze de temps hmm. tam na dix heures ci suba hmm. ba vingt heures wallaay hmm. ramassé nañ waxtu yu bari de léegi yooyu yooyu nga wax lan moo ko wutaleeg yi nga waxoon bu njëkk yan moo ko wutale yi ma maam Maajoor booy waxoon dëgg la de ak Moustapha Niasse mu ngi toog yam waxoon ku ci nekk ba nga nekk premier ministre li nga waxoon mhm. ba tey li ñu ne woon daañu ko def mhm. ana li ñu euh, la ca des wallaay ñu ngi ne mhm. moo tax ba ñu ne Aboubacar Siddiq yaay yaay xalifa ñëpp toog ñu war a julli ji tisbaar mhm. te xam na ne war naa def discours mhm. te du dox seen diggante ak julli mhm. ndax bu ko doxee rek la ñuy def day yàqu ndax suñu borom moo koy xajamal waaw dëgg la dëgg la mu ne leen wulitu aleykum lay ndeysaan wa lastu bi xayrikum lay tey ji wax atiuni ma ataatullah fa in asaytuhu fala taati li aleykum lay fumu ila salaati allahu akbar tey aw akbar lii mooy discours général am jeex na lu mu wax mooy def na nit ñi hmm. fal ngeen ma hmm. waaye gënuma leen gënuma leen ndeysaan gën ma taxut ngeen fal ma sama juddu du samay hmm. waaw kay foofu foofu yëf yëpp bëri ngi foofu topp leen ma li fekk maa ngi ci yoon wi topp leen li fekk maa ngi ci yoon wi ndeysaan su ma wàccee yoon wi dëpp leen acan julli ah oustaz kii di am bi bokkut ak suñu yos yi nag. Ah, moom waxut ci tëli yi waxut li fi mu jëmee paj nii waxut aéroport yi waxut waxut waxut plan yi ñu am yëpp di waajal ab élection. xam nga lu tax. Ah. bi mu ne topp leen ma li feeg maa ngi ci yoon wi. Hmm. mooy def ko ne bu subaa mu xëy na xëy ci yoon wi. waaw yóbbaale na lépp. waaw te. <laughs> lu doy waar la toppale ma li fekk maa ngi ci yoon bi mhm. garantie la boo xam ne dañ leen di war ne kon moom mi ngi ci yoon mhm. bu subaa mhm. ci nangam lay xëy ginnaaw suba ci nangam lay xëy bu xëy rek nu xëy dem ndeysaan ba noppi ne bu ngeen ma gisatee man ma ne ci ma noppee ne ci yoon wi dëpp leen dëpp leen waaw ah, bu ma kenn topp waaw est que am na solo léegi nag oustaz bu ñu duggatee ginnaaw bi nga jëlee misaal mu am solo moomu loolu lu am solo la ci xibaaru daara ji ndax day wone ne ñun waa daara bu ñu joxoñ Euh, ñeneen ñu ne ci yeneen xeet yi mhm. ci seen programme naan ah lii kat bu ngeen ko defee woon nii daa fekk ne ñun am nañ modèle yoo xam ne nañ ko defee woon baax na ah, indi nga ci benn muy Seydina Abubakar Siddiq wax ja gàtt na te tënk na la mu bëggoon a wax te jàngale na Eh, waaye ñun oustaz boo ko jàngatee keroog kendal gi mhm. gudd na lool eh, man dama ne sax gannaaw li olof naan walluwaa dee asamaan ngi ci pind ba mhm. ñu toogoon seen i télé bu koo topp ak seen i rajo sax mujj nañ sonn lool asamaan nag ña <laughs> ña nekkoon ñoom fas yéenee doxal yëf yi ñoo ñaa ci gën a sonn kon eh, waaye bu ma seetloo ni mbir mi tëddee moom premier ministre ci boobu am na njàngat muñ mën a def ci moom mm-hmm. mooy li nga wax léegi discours bi gudd na xëy na lañ waxoon bari na luñ ci baamu mm-hmm. bari na itam luñ ñaan ndax jaroon na ko mm-hmm. waaye ñam fekk si nag oustaz nga xam ne ñii ñoo jóge fële ñii jóge fële ñu fal leen ne leen yéen a fa nekkal askan wi oustaz ñoom bu ñu jëlee kàddu noo jàngate seen i kàddu ñoom les députés ah, jërëjëf xam nga léeg-léeg ñoom am ci ku jël kàddu du wax ci débat bi du wax ci thème bi dëgg la loolu day ca bari moom waaw que mbooloo mee toog lay wax kenn. waaw waaw maanaam tontonte moom am na ku bëgg a tontu wala woon ca wax. Mhm. waaw. wala lu may kii deuxième mandat. dëgg la ah wax nga dëgg. loolu dafa tuuti oustaz. dañoo toog kii tëral ni lii laa bëgg a def. waaw sonn ci nag. wax ay wax bu ñëwee ne ko. ah jaajëf wala boog waaw xanaa da fàtte càlle. waaw amagul courant. Mhm. ak loo far ak moom. ak loo farfar ak moom. Ah, nga suuraale waa càlle nag. parce que nit kii mbàkke. <laughs> waaw léeg-léeg nga ne ko ah. Mhm. maanaam loolu la ñuy soxla ci député. dëgg la en tout cas sant mi ngërëm gi bari na fa oustaz. nga ñëw taxaw ñoo ngi sant président yow lañ àndaloon bi ñu campagne yaa ñu fal ñu tàccu nga dem toog ma ne ko yow da ñoo yeb. te deux minutes deux minutes lay dox deux minutes. nga mel ne yow gox ba nga jógee dara manqué wu fa lépp a jag. xanaa tey xam nga am na benn député bu ko fa wax defe naa suñ mbokk yi dëkk Touba la. Ah. Euh, damaa fàtte tur yi waa kër Sëñ Baara Dolli yi. nee na premier ministre moytu ñu naan la gongo gongo rek ku jëm ni la gongo ñoom ñëpp bu yàggee ca gongo nga leen di <laughs> ci maanaam ca dëgg-dëgg loo faral nit ki faral nit ki lépp mënta gongo nag. déedéet lépp gongo moom lépp gongo. <laughs> waaw. Euh, waxoon nga léegi sunu modèle yi. waaw modèle yi oustaz. Euh, Omar ibn Khattab dafa taxaw ca jàkka ja. day radiyallahu anhu tànne na ngeen di déglu tey topp ndigal am ku nu ñokk ci biir jàkka ja ne ko xanaa nga wax ñu sa xaftaan bi noo def bam jot allahu akbar boo bëggee ñu topp ndigal hmm. danga sa xaftaan jot ndax démb ñu séddale yére yi lañ ma joxoon a lañ la jox ñoo tolloole nga sol te soluma ci député bi loolu la ko wax loolu la wax ci biir mbooloom <laughs> na leer waa dig na ñokket na ko caq hmm. isaan ko koo tëkkër bi joo Omar yëkkati loxo mu yëkkati mu ne leen daawuhu bàyyi leen ko mm-hmm. Mm-hmm. bàyyi leen ko mm-hmm. waaye mbàkke lam jox moo daw yaram laa xayra fiikum izaa lam taquluuhaa wallaahi ndeysaan oho wala xayra fii naa izaa lam nasmaahaa wallaahi ndeysaan suñ modèle yi mu ne wax baat bi mu wax mm. li fekk du wax baaxu leen moo tax ku dul wax chef delta du foofu bu fekkee du foofu loolu lay wax rek ku nekk kilifa da nga koo war di wax nangam. di ko wax di ko jox la xëy na fiikum isa lam taqul waaw waaw. mu ne noonu nag chef de l'état yi njiit yi mm-hmm. wala xayra fii naa isaalam nasmaaha dëgg la buñ nangutu dégg lii noo baaxut mm-hmm. daal ni waa ji kon leen li nga bëgg a wax ndeysaan tt <laughs> loolu la yëf yi moo tax kon bu ñu bu ñëwee exposé li mu bëgg a def yëpp jël ca not mm-hmm. bu paree ne ko jërëjëf président waaye mool yi ci ndar ak ci ñol-ñol ji. waaw koy man defe naa sax ci lañ lay gën a nawe daal. <laughs> waaw waaw parce que nag wuñ la fa rek nag ngir nga naan ko ngay sant ak yooyu moom war nga koo mën a sant waaye nga fàttali ko nag bu defee lu baax nga wax ko te fàttali ko lim defagut. jeex na te détail ba loolu la loolu la loolu war a joxe. waaw oustaz daal am na fa. politique générale la politique générale. Mhm. am na fa député yoo xam ne daal moom. Euh, wax dëgg yàlla xam naa ne léeg-léeg sax nga teg leen ay kilifa waaye ci jotaay yu mel nii bu jàllee nga xeeb leen. waaw ndax ñoom cant ak ngërëm gi day mel ne fi ñu leen teg sax da a jomb day mel ni poste député bi yow léegi li nga war a liggéey mooy sant gërëm ñaan sant gërëm ñaan te nag ñun soxlawuñu loolu nag sëñ Cheikh nee na hmm. nattu bi yàlla mi ngi yem ci hmm. jógal wax nu déglu la hmm. sëñ Cheikh ma Tijaan si moo ko daan wax ndeysaan ne nattu bi yàlla ngi yem ci jógal wax nu déglu la parce que nit ñi boo defee aussi sa ñu xam ko dëgg la ah? dëgg la boo kee ñu xam ko boo logg la ñu xam ko kon nag député boobu na jóg wax rek dëgg la ndax mandaam député moom xanaa suñu réew xëy na de waaye mandaam député moom député ko moom wallaay waaw ba noppi nag oustaz amaan na beneen jikko loolu sax dafa mel ne yaatu na ci assemblée yu baree bari ci àdduna bi boo xoolee dama koy faral di gis euh, léegi da gis euh, maanaam bu waa ji waxee député bi ñëw wax ci misaal tey ma jël Sonko ndax ñu bari gis nañ ne euh, li muy wax moom ma ba xam ñi jiite ñi ngi ko naan waaw góoram déet waaye population bu baree bari moom ñi ngi ko naan waaw góor mm-hmm. opposition ngay nekk boo waxee dañ naan dafay opposé moo tax mënta wax lu baax yu baaxul yi rek lay wax moom it bu ci doon boole léeg-léeg naan yii baax na waaye lii baaxut xëy na mu doon lu gën a tëdde njaaxaanaay kon lu la bëggoon wax waaw wax ko waaw kon ñi kon ñi bëgg a maandu moom te bëgg na ci digg bi ci la ñuy gën a mën a ànd ak moom dafa am foofu boo fa xasee nekk mhm. foofu rek lañ lay déglu waaw boo mën wax nag foofu lañ lay déglu mhm. loolu danaa lay wax toujours naa la suñu mbàkke del moytu mhm. ci suñuy jàngale suñu yooyu ñu tafal la tiketu sama nangam ji. waaw <laughs> wallaahi. feet wax nga dëgg de wax dëgg de. ci penc mi. waaw di opposé. Mhm. am na foofu boo koy wax di mu jàgg yow foofu rek lañ lay mhm. ki nekk ci bi tamit dafa am moom tam foofu rek koy déglu. Mhm. dëgg la. waaw dëgg la média yi noonu la dañ naan sàngam ah fii rek lañ koy déglu. waaye boo tëddee jaaxaanaay. fexe ba mucc ci parparloo. li ngay wax ci lay gën a amee solo. dëgg la léegi nag yooyu muy joxoñ oustaz li muy am am solo nga xamante ne wax di yàlla joxoñ yu am solo la ca lam jàng xam ko ci wàllu économie ya nga xam ne moo ca aju bu ca waxee ba pare ah ñun de dañ naan gongo waaye dangay seetlu ne bu tàmbali woon a wax day am man mi nekk ab député te faruma moom li muy wax xëy na sax man la koy waxal waaye dama koy yuuxu maanaam ci saboté ko laa koy nekk damaa jël ci moom misaal waaye yuuxonte bi am seen biir ak tontonte bi nga xam ne bu saaliwu di jëli kàddu gannaaw farut ci APR man mi far APR li may xënte woo mooy nañ ma toftal ci ginnaaw bu saaliwu daanoole rek ma weddi li mu waxoon mhm. daal koy xas léeg-léeg nga wax ci jëmmam moom loolu itam li koy waral mooy lam waxoon barki démb ak démb mhm. ma tax koy tonglu tey <laughs> <laughs> waaw fa mu fëlloon barki démb ak démb ngay jàpp ni fi la war a fëll tey moo tax nga koy tonglu bëgg bu noppee nga la fa yow tam laaj ci ko am loolu sax ci wax sa xalaat day wax sa xalaat yi laaj laaj ko laaj ko <laughs> njoon mhm. wax sa xalaat tontonte bi waaw wax ne kii day dugg pour tontu kee rek waaw <laughs> donc loolu penc mi mhm. buñ ko bokkee ñun ñëpp mhm. ku ci nekk nay wax lu jëriñ ñëpp bu boo gisee nen neel nen a ngi bu tojee hmm. neel nen ba toj na dëgg la ah jàmm na ñooy waa réew mi xam ne yow nen bu toj rek nga wax jàmm na ñooy sa njiitit la la falit bëkki ndax danaan kii fal naa ko waaye mi may xoolal li baaxul mu ma koy wax jàmm na ñooy man ma njëkk a togg chef de l'état nga lu ma ko hmm. bu xam ne actuellement yaa ayee hmm. mu waaw ma ne ko suñ réew mii nag ñun li bëgg mooy ñu añee omelette te bul toj nen <laughs> mu ne mu loolu li mënu ko ma ne ko ah coow coow lu rëy foo ngaa beneen bi ñu ne nana ko toj. waaw ay boo ko tojee. waaw ba pare naan la gaaw a lekk am la. am na lañ bëgg lañ <laughs> bëgg lañ bëgg añee. Ah, c'est compliqué <laughs> lu méttee métti ngay wax noonu oustaz te itam loolu mooy njàngan mi beneen bi ci des itam ci wàllu député yi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci régions yi oustaz ci dëkk yi euh, itam bëgg naa nga euh, laaye leen biir ñu waxtaan ak ñoom. ñu sóoraale nag ñañ fa bàyyi te ñooña xam la ne ca dëkk ba mm, léeg-léeg nga gis koo xam ne day ñëw ne dëkk ba ma nekk moom lépp baax na Euh, te fekk ku ko dégg day xam ne fara tax mu ne lépp baax na euh, foofa moom waxatuñ dara euh, te daanaka lañ fa tàmbali daanaka aggut yenn ya dañ koo fàkk bàyyi noonu damay bañ joxoñ ba gën a maanaam baaraam bi gën a tàlli hmm. waaye oustaz loolu itam mat naa wax de waaw mat naa wax hmm. waaye suñ mbàkke hmm. député yi jóge ci région yi jógewuñ ci région yi ci yi lañ jóge <laughs> Saliou dinga boobu <laughs> wax nga dëgg de ah. waaw ah daal affaire bi man fi ma koy xool du foofu. parce que boo jógee ci raison bi. Mm-hmm, mm-hmm. raison bi ngay défendre. waaw koy waaye boo jógee ci liste bi. Mm. liste bi ngay défendre. dëgg la de wallaay wax nga dëgg. looloo yëf yi. dëgg la de. waaw dëgg la de. <laughs> Mm. dëgg la de wax nga dëgg de moo tax moo tax fi ñëw naan. Mm-hmm. sama dëkk ba amul nangam. waaw déedéet parce que liste bi ngay défendre. liste bi ngay défendre. yow pour yow amul nangam. soo ñëw soo ñëw daal premier ministre yaa nu jiite woon ba nuy dem. waaw. oustaz ne ah. ñun nii la ko gars yi doon waxee waaw waaw yaa ñu jiite suñ campagne battre campagne parce que kooku liste bi lay défendre indi ñu fii amuñu sa fay <laughs> waaw jërëjëf <laughs> njaareem nag lépp baax na <laughs> ay waaye ndaw baax na dañ jàpp la ba nga ñibbisi loolu loolu la yëf yi kenn mësu ko gis ndeysaan kenn mësu wax nga dëgg oustaz mm-hmm. jërëjëf kon léegi loolu tomb la bu am solo boo xamante ne bu yaatu la oustaz xam naa waaw ah, sama del bi mm-hmm. wa jaa am ni waaw beneen député ngi noonu député mu noonu député daara jooju lan la defoon moom. député daara ji dafa fekk euh, yàlla yónni ay gaay mm-hmm. ah. Mm-hmm. fa azzazna bi thalith. wallaay ndeysaan. di yónni ba ñu trois. Mm-hmm. fa xaalu inaa ilaykum mursaluun mursaluun nun yàlla lu ñu ci yónni. wallaay ndeysaan. waa dëkk ba song leen. wallaay ndeysaan. léegi nag. wa jaa min aqsal madina député ba ñëw. wallaay ndeysaan. waaye suñu mbàkke hmm. min aqsal madinati min aqsal madinati mooy moom bi mu ñëw kon liste indiwu ko waaw nekkul député boo xam ne ci liste rek la bokk déedéet ñi ma wut woon wu ca région ba mu dëkk daa ñëw ñu dugal ko ci liste nationale bari na fi nag <laughs> wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa waaw ndeysaan waaye bi ñëwee fi bi mu am mooy hmm, hmm. sëñ naa wax ci li xew waaw ndax moom yii feesul bëtam tabiul mursalin wallaay ndeysaan waaw ndeysaan ittabiu man laa yasalukum alayhi ajra koo xam ne du la du la fay ci lim lay woo waaye waaye lim lay woo bu doon bu doon dëgg sax. ndeysaan waaw. da di sañ wax la mu wax wallaay wax la mu wax. léegi kon sëñ Mbàkke. Hmm. kii ab liste fal. Hmm. défendre liste bi da koy gën a yomb ci défendre ab région. Hmm. wala ab département. waaw. tabarkàlla am na solo am na solo oustaz loolu yaatu la euh, li ma doon daaneele ci tomb boobu mooy limub député yu bari yi oustaz ci réew mi. nga xam ne fi ne téeméer ak juróom fukk la ñu woon ñu dolliwaat ci fukk ak juróom suma juumut yu bàyyi ko bitim réew. te boo xoolee keroog bi ngay seetaan ñu jox leen ay ñaari minutes ñetti minutes ñeent gën ngaa bari euh, mujj na mu jural ñu waxtu yaatu te boo seetloo lañ wax wax juñ mën a jàpp ne lii ay wax la ko fa wax mu tut fukki député mm. waaw seen bari waaye bi amal nañu njariñ ah waaw léegi nag looloo duñ ci taxaw député yi mm. conseil économique yi mm. haut conseil yi mm-hmm. roq bu ci nekk juróom fukk képp doyoon na ci sëkk mm-hmm. ndegam ëpp dëgg la au conseil moom xamaguma lu ñuy def sax ñoom. ñoom moom wax di jàll lu ñu fi def xamaguma ko. ndegam ëpput xam naa baro dana ma ko wax. waaw ayca ndegam ëpput. Mhm. donc su fekkoon toll nañu noonu. Mhm. bu ñu dee wax ku ne man ngaa am fukki minute ak juróom. Mhm. wax ca la nga ci bëgg a wax. mu leer naññ. ndeysaan la ca tege mooy suñu mbàkkee. discours ba fay am. waaw. yu ko déggut ci réew mi. ñaata lañ bari na. surtout sax bu ren bi déclaration politique générale bu ren bi. parce que réew mi ñu fi déggul tubaab te bëggoon a xam li muy wax. dëgg la bari na de. mën na leen firi ba bu fekkee ne. Mhm. li mu wax nii am na ñëpp man na fotti si parce que mhm. Mhm. mais boo ko lakkee tubaab. man day wax dëgg yàlla. par ay baat laa cay for ak i phrase. oustaz du yow donc gis nga fi mu ne li nga wax noonu oustaz. da ngaa dugg wax loolu waaye bari na. ñuy karawaatoo ko ne ci affaire yi nga jàpp ne dégg nañ li waa ji di wax tuuti lañ ci dégg. xam nga lu koy layee baal ma gis nga fi ne boo seetlu woon président buy wax nii ci am ci am mbooloo di def discours di wax français day mel ne waxut ak ay nit gaa yi dañ naan moom mu toog na ci yàlla waaye bu tàmbale wax olof du wax juróomi minute nga yëg ni wax ji di duggee ci ñoom maanaam complexe doo nga ñu jàpp de waaye gars yi dégg ñu tubaab de ay ca léegi nag hmm. ku ne ci réew mu mel noonu hmm. da ngaa war a xam réew mi hmm. waaye Dakar nii xut ba noppi dem xom xom Sénégal nii xut ba noppi dem xombal toog Sénégal ñuuxut ba noppi dem xombal toog. dëgg la de léegi foo nekk. dëgg la de ndax discours bi mu wax wax ay ay waxtu yu bari dégguma ko ci posé question ci biir li mu doon wax. loolu bokk na ci sëñ Mbàkke. waaw bu mm-hmm. ci bopp nit ñi. Mm-hmm. réaction yi moo lay xamal ni ñii dégg nañ ma. Mm-hmm. ku ñëw ci thème bi lay wax. waaye fi nañ ne ko fu ñukk di wax ci leneen. dëgg na mooy dégguñu leen. dëgg la de. dëgg la de ah li nga wax dégg ko. dëgg la de. waaw ndeysaan moo tax kontaan naa ci député yi làkk seen làkk yëpp. waaw suñ mbokki pulaar yi nga xam ne bañ ñëwee ñoom dañoo wax lañu dégg ak soxna foofu di làkk làkk woow nga xam ne bu koy làkk nit ñi di ree <laughs> moom itam <laughs> waaw moom itam lam làkk daal ñëw daal moom daal làkk na lam xam. xam naa la taqulu raa'inaa la jàng waaw <laughs> moom daal loolu la wax jàpp njàmburam moom. <laughs> am na solo yàlla dimbali. amiin yaa rabbal aalamiin am solo la amiin amiin. jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tomb boobu di tomb assemblée nationale bi. xam naa maa ngi ciy bëgg nag ci. waaw eh, xam naa ministre wax na lu bëree bëri daara yi. Mm-hmm. moom kàddu gi moom génn ci lamiñ ma lu bëree bëri. Mm-hmm. xaw ma nag exact euh, lu ci xew waaw. waaw xam naa wax nañ wax nañ yu ñu defal njàngkat yi arab yi daara ji daara ji daara ji am dégg naa lu bari donc wane ne diplôme maanaam diplôme arabe yi léegi reconnaître nañ ko ñu ngi liggéey ci corps diplomatie bi di liggéey ci nàngam daara moderne yi wax nañ ci loolu nag seen kii la xawma ba xam la mu wax yéen gis ngeen ko déet loolu de tubaarkàlla man daal en tout cas dégg naa daara daara daara rek man ah ndekki li mu wax ci daara ndeysaan ndeysaan wallaay wax na ci ba tàyyi alhamdulilah am na solo oustaz jërëjëf ci tomb boobu xam naa danañ ko gën a jàngataat leneen li ci des nag mooy euh, li ngeen di déggee yéen ah, yow sax en tant que conseil économique mm-hmm. euh, ci discours général bi euh, maanaam lim ci wax lépp nga xamante ne dana jaadu nag ñu jël ko jàngat ko mm-hmm. xool ba xam maanaam politique la gën a la gën a ñeel ab dige la gën a ñeel ndax fa taxawoon taxawoon na fa ay at ci ginnaaw mm-hmm. ñu xool ba xam lu ci tënku comme député yi defaluñ ñu ko a nam nabil suñ bopp rek ñu nota ko kon déglu ko rek ba xam incha allah ruq fu mu danañ ko def député fi ne mm-hmm. bu ñu wateelee ab ministre mm-hmm. lim am sàqam mm-hmm. bu déwee nañ ko war a wooxaat taaj ko mu wax fi mu dugal xaalis bi député loolu la bokk ci ay ay ay ay ay taxawaayam ab taxawaayam nekkul xas am ministre ministre ñëw nga di ko ngay ngay wax loo xam ne jëmmam la engagé moom bokkut ak programme bi mu yor dara loolu loolu amul benn sens jërëjëf am na am na solo oustaz jërëjëf ci tomb bu am solo boobu du ma sori foofu dina bi ma noppee ci premier ministre ak taxawaayam boobu ak kendal gu gudd googu <laughs> xam naa waxtu julli moom du ma ci bëgg a dugg waaye daal jotaayu jullit la woon te dégguma benn yoon bu ñu nañ teg suñu baaraam julli ji te ñëw donte waxuñu nag nañ ko teg añi te ñëw wala ñu naani te ñëw gis naa nag ñu ma gis ñu ma séen ñuy génn yi dem ak a ñëw xawma lu ñu doon defi <laughs> danañ ci ñëw ndax su ma waxee ñu ne ma réewum layig lañ nekk ko defee looloo ngi noonu mm. tey lañ doon daloo aéroport bi bees bi nga xam ne moom lañ doon tabax ci réew mi te war a euh, tuxal bi amoon yóbbu ko fa ñu di ko tuddee aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne nekk fële ca jas ah mi ngi noonu de yéen demoon ngeen fa visité ji ko tey jii la fa président xëyoon na ki ganam doon ko ubbi ji noo jàngate aéroport bi waaw bii daal moom suñu mbàkk wax naa sax nga moo dàq gaara su ko caari mhm, waaw <laughs> ndeysaan sëriñ Cheikh de loolu la waxoon waaw bii moom moo dàq gaara su ko caari <laughs> ndax yàlla <laughs> Eh, xam nga ñun conseil yi demoon nañ fa ca weer weer. Mm-hmm. ñun demoon nañ fa. Mm-hmm. xaw faa def yendu. gis ne aéroport yi ci àdduna si niñ leen def. Mm-hmm. bii niru na ko. piste ba baax na. Eh, départ niñ fi ñu koy defee baax na arrival bi baax na. Eh, macha allah. moom daal. neew mel ni moom. Mhm. baax na mucc na ci ay macha allah ndax yàlla des nag nun africain. Mhm. Afrique gépp nag. Mhm. su nu amee dara. ni mu koy sàmmee léeg-léeg. santiment yeeg yooyu moo koy yàq. ak par parloo yi. lu mel ni aéroport dañoo war. fu fekkee nun ñëpp a ko bokk. ku ci am ay sañ-sañ koo mën a doon ñu jox la ko ku ca sañut koo mën a doon ñu xañ la ko su ko defee jàmm ne ñooy ñool ñool du am ndax mbirum ñépp la lu ne ku nee nga ca ñu ko la di waxe loolu daf ñuy dese lu bari te itam lu mel ni aéroport xam nga fi ne nekkul Dakar Thiès la nekk wala boog région Thiès ndax Thiès dana ci gis boppam. Hmm. loolu jar a bàyyi xel la. Hmm. nu bàyyi ci xel nun ñëpp ku ci nekk gis ci boppam. Hmm. su boobaa danañ ko mën a sécuriser ni ko war a sécuriser jàmm na ñooy. waaye daal rafet na jekk na. barab bi nga xam ne fa la ujaaji di déparé. Mm-hmm. macha allah. angal prénance. <laughs> angal prénance moom suñu mbàkk. Mm. léegi du nu baas. Mm-hmm. ndeysaan defar nañ ko ba mu baax. defar nañ ko ba mu baax yaatu na place yi bari na. Mm-hmm. ñu tëleen seen jullikaayu bopp ak seen départ bopp. macha allah ndax bu ci xasee noppi dinañ ko karaj. kuy tukki fa la ngay tukkee. waaye fii moom. ñuy aj màkk rek la. am na foofu itam defar nañ ko defar bu baax. ber la leen nag. ber nga xam ne bu ñëwee. ba dafa déparé dafay mel ni kuy tukki bay dem ci dem ci tukki international euh, waaw normal rek comme euh, comme voyage loolu lay nërool mhm. donc loolu am na mhm. am na fiit barabu jullikaay bu amutoon fii ci bi ñu amoon mhm. bi ñu amoon amutoon ay jullikaay boo fa nekk bu julli jot dañuy pëccaxoo ñun ñëpp waaye jot fee nag def nañ fa jàkk bu jigéen ñi Mm-hmm. jàkka ju góor ñi mm-hmm. boo xam ne incha allah nit ñi mën nañu fay jullee am na solo waaw loolu daal gis naa ko ci aéroport bi mm-hmm. la ci tegit mooy gise yi bari na léegi ñu contrôler passeport ñoom seen yooyu léegi moom juróom la juróomi téeméer mën nañoo ñëwandoo taf taf ñu dem ndeysaan loolu am na solo gis na ñuy tap yi nga xam ne ñoom la ñuy teg euh, bagage bagage ñuy jël xam nga fii benn la woon xaw ma ñaar fee nag mat na ñeent ñaar la woon fii moom mat na ñeent yoo xam ne bu ñu rullee incha allah ba yi wàcc kenn du fa am deux minutes wala trois minutes jëloo say bagages kon nag ñu ngi leen ci félicité di leen ci ndokkeel di ñaanal maître Wade mi nga xam ne moo ko xalaatoon mm-hmm. ba ba tegoon xeer wa mm-hmm. di ko ñaanal barke tawfiq mm-hmm. waaye di ñaanal ki ko àggale moom tam ba indi gine ko waaw penc mi nag nun lay doxee noonu nag suñ bàkkee mm. dafa mel ni suñu réew mi ñaari président fi nekk mm. fi mu nekk nii nii dafa mel ni <laughs> loolu garaaw na de Ousmane. waaw lu tax loolu. buñ ne mburu mi ñu ne mburu mi Abdoulaye Maître Wade ko jëndoon. dëgg la de. ñu ne déedéet mais. Macky Sall ko jël Macky Sall moo moo ko dagg tey. waaw ñun ba léegi mënuñoo nangu ne daal état continuité la. léegi nag kenn du tudd Senghor duñ tudd Abdou Diouf. waaw te ñoom it nañu mburu mburu mi Abdoulaye Wade moo ko jënd. ñu ne ñu ne ko déedéet Macky Sall ko dagg. mais oustaz est-ce que du itam ñoom it mel ne ku fàtte Wade lépp lu mu defoon ba bëgg jàppee nit koo xam ne ku déranger la. looloo tax xam nga Senghor tudd ko yi. tudd na fi Senghor. waaye xeexuñu ko it de. affaire bi du tudd. Hmm. déedéet parce que ci secret de secret d'état. secret d'état waaw. Hmm. nit ki nga xam ne dafa ñëw ñu jox ko ne ko yaay chef de l'état. Hmm. moom dañ ne ko am na yooyu xam bu ko wax. ndeysaan na cel. yëf yi daal mu noonu continuer noonu rek la. dëgg la loolu mooy li wér. loolu loolu. loolu tëdd. dëgg la ku wuutu nit wuutu ay secret. waaye waaw. waaye la kii ko fi defoon. yow defoo ko fi. ñu naan kii defu ko kii ko fi def. lim fi def lu nekk. du président Macky moo ko def. du maître Wade ko def. du Abdou Diouf ko def. du Senghor ko def. état bee ko def. dëgg la tey. boo fi fekkee bor yaa koy fay. am déet. Mm-hmm. boo fekkee photo yaa cay toog. dëgg la wallaahi. te nu continué nag liggéey. yàlla na yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin am na solo oustaz ci nii nga ñu ko jàngatale aéroport beeg nii nga xamante ne noonu lañ ko defee hmm, lu am solo la léegi nag oustaz ma dugg nag ñu ñëw dugg ci njàngat mi maam njàngat mi nga xam ne ay sew-sew la yoo xam ne am na ci biir hmm. te it loolu ñu war cee bàyyi xel ci ni mu taxawee hmm. ah, bokk na ci oustaz li may jiital ginnaaw ñu ci eh, rafetloo ndokkeel yooyu nga xam ne moom nga indi ci waxi président yaa ngi mel ne kuy am jaaxle ci ñun africains yi ni ñuy sàmmee dara buñ ko xasee ba am. Mhm. waaye dafa mel ne aéroport bi ñun moomaguñ ko de ñun africains mhm. ndax su ma ko dégloo moo autoroute ñoo xaw a yem ci nu mu a demee. Mhm. maanaam ay pàcc pàcc lañ ko def yoo xam ne benn bu ne am na ay réew yu ko yor yoo xam ne du réewum Sénégal te ñoo ñoo ko war a saytu fii ak nangami at. mu door a dugg ci suñu loxo. loolu itam moom. waaw loolu léeg-léeg mu jàpp. léeg-léeg mu métti. ndax boo wootee yu mel noonu. day am ku ñëw trent pour cent. Mm-hmm. am ku ñëw ak soixante pour cent. Mm-hmm. am yow nga am loo indi. Mm-hmm. bu fekkee li nga indi moo ëpp li ñu indi. yaa ko moom. bu ñëwee indi lu ëpp li nga indi ñoo koy moom. moom ko diir. seen xaalis génn. ñu delloo lu séef. loolu maanaam saa bu ñu wootee ci penc bi ci àdduna si léegi mhm. léeg nit ñi ñëw def ci loolu mhm. li ëpp yi li ngay def nag aéroport ak ak ak ak autoroute mhm. ñaari moo ci gën a bari parce que autoroute mbirum wutum xaalis la boo duggee fay waaw ndeysaan fi ne euh, boo amoon xaalis bu baree baree bari ku dem mën nañ laa may nga def sab autoroute fii Dakar euh, Saint-Louis ndeysaan jaar fay la <laughs> te loolu noonu lañ koy doxee. Mhm. ab bitim réew da nga gis koo xam ne day fekk ab équipe mu jënd ko. Mhm. jënd équipe ba jënd stade ba lu fa dugg rek. Mhm. léegi mooy moom. bu ma see neexee muy jënd ay joueurs ñoom seen yooyu. àdduna la ñu xaw a def noonu suñu mbàkkee. Euh, la cay def daal mooy su fekkee yow mii réew mi nag yaa def 60 pour cent. léegi nag yaa war a moom. wala bu keedee moom it. na ko moom diir bu gàtt dalalu si yëf mhm. waaye ay fanweeri at ak ñaar fukki at ak juróom moom mhm. c'est trop c'est la de daan nañ ko wax ci autoroute bi de waaye itam bu aéroport bi itam yéeme na lool ndax ñun ñëpp dañaa alhamdulilah am nañ aéroport waaw ndekete mi ngi ay loxo ba léegi te dafa mel ne réew yu ñu wër ñi ngi tabax seen i aéroport ba noppi di ko yoral seeni bopp ci seeni i bopp ñu ne ca biir réew ma mhm. xaw ma fulla la xaw ma ak jekk la gu ñu gën a jekk xaw ma lu xew <laughs> nga rek mi ngi noonu daal euh, sunu sunu wax day ëpp léeg-léeg suñuy jëf. saan mhm. naa lay wax toujours ne dañuy daje ak équipe ñax Côte d'Ivoire. waaw. bu ñuy tase da ngay def ne Sénégal da ko war a leb. waaw ndax coow li. moo koy ku mën dajal bu ñu coowee rek nga ne tey ñu rey ko. <laughs> loolu la. suñu yëpp nag daanaka loolu la. dégg naa président jeexale ko discours am tey insisté ci lool. ci dañ wax ji te dem liggéeyi. waaw góor ay bu ñu ko bàyyiwoon te dem liggéeyi. <laughs> danañ wax nag de yii gars yi noppee leen di të. nopp loolu ma jaax te ndax dafa mel dafa jékki-jékki xew. xaw ma wax xalaat moo ko tax a xew. waaw daf mel ne dañuy dund ci wax na oustaz. waaw wax rek ni nit ñi di dundee ci liggéey noonu la nit ñi di waxee ngir am dara. wax rek. Mhm. waaye cey bu ñu mosoon cell tey liggéey. Mhm. politiciens yi def ko. ñi ci état def ko. ñi nga xam ñoo opposé def ko. daanaka weesu nañ fii bu yàgg a yàgg tabarkàlla. Mhm. ndax wax moom jompul biir. jëmbul am na solo oustaz beneen bi ci topp oustaz mooy fi aéroport bi nekkee ci Sénégal waaw dafa mel ne dem fa yombut mhm. mm, maanaam mooy suñu garage bi ñu def nga xamante ne mooy boo marité mhm. ni nga xam ne noonu la jafee ci nit ñi aéroport bi itam dana tegoo noonu oustaz ay jafe-jafe yu metti bokk na ci loolu jëmmi autoroute bi ci boppam nga xamante ne tey boo fa doon dem boo muy tuut euh, daanaka danga fay lu mat juróomi téeméer ngir àgg fa defe naa mat na ko de euh, boo ko defee aller retour daanaka mu nekk 6000 euh, loolu itam oustaz daa mel ne taxu koo yomb de fa nekk yombul dara de ah dëgg la nag sëñ Mbàkke hmm. <laughs> dem nga màkkat daaw hmm. dem nga faren hmm. aéroport bi nga wàccoon daaw bokkute bi nga wàcc ren bi nga wàccoon daaw dañ ne dafa jege Madina dañu wàccoon ren fu ëpp war na ëpp quarante kilomètres. Mhm. digganteem ak Madina. Mhm. lu dëgg. dëgg la boo ñibbi it fa ngay duggee ci Jidda gis nga ko. Mhm. oto bi day daw ba nga nelaw bi yeewu nelawaat yeewu door a àgg. Ah, loolu kon sore gi du ci dara. problème kay mooy ñun suñu transport. suñu transport ngay def léeg-léeg. lu lan moo xew. transport boo xam ne comme neex nga dugg ci. Mhm. léegi te ngi fi ne ci seen Mbàkke ku takk ab sareetam sareetu mbaam. Mhm. teg ko ci télé bi wuti aéroport. wallaay <laughs> nga wax ko mu ne damay liggéey damay daan sama damay daan sama doole. wallaay tey ñun. yëpp. Mhm. waaye aéroport bu sori bi. peut-être du ci dara. xanaa la ñuy def kay mooy delloo si compteur ya. ak si compteur yi. képp. delloo si compteur yi te di ko contrôler. te wàññi APS wala. waa bu contrôle bu contrôle ñëwee. Hmm. léegi APS bi borom taxi bee koy fay wala mu jaari feneen. ah comme contrôle te moom lu mu gën a yàgg ci yoon wi lay gën a kii xam nga ñun itam xam nga suñ jikko di oustaz baa du jaar fu gën a yàgg ndax mu gën a jaar fu gën a yàgg bi sëñ Mbàkke. Hmm. moom contrôle bi moom. bu bu ruuy daw rek. ah ci lay. maanaam ci lay bind damaa xamul compteur bi. muy gën a liggéey. <laughs> ci bi compteur di am. boo manqué daara ba ne bitim réew bi. Hmm. da ñëw rek jël sa wàllu teg ci ginnaaw rek dugg toog. Hmm. waaw doo fa nekk naan ko ñaata Castor laa jëm 2000 laa daan fay bu dawala bi ca kanam nga ne ko daaru ci bu laa jëm gauche droite gauche droite ba mu ne jëf ci buntu kër ga hmm. mu xool gis muy muy vingt ko di dem ndeysaan loolu mar naa mën a dellusi ci penc mi hmm. waaye sëgg ci mu ne taxi bu dee nogay waaw foo jëm mu ne ñaari tëli yi nga ne ko indi 1000 francs mu ne 200 laa am dëgg la de xam nga loolu léeg-léeg ku mel ne man def ko jàpp ci buntu bi waa accéléré ngay bëgg a mu dem yoonam ne la yow. demoo <laughs> nga xaaraat keneen. kon sub 200 boo ko waxoon Cheikh Dieng xam ne mu mere la. di waxaale ba gars yi di la xool nga déplacé wu dem taxaw feneen. donc ginnaaw noo bëggoon aéroport bu baax. ndeysaan noo bëggoon aéroport bu baax. Mm-hmm. il fallait que ñu def ko fu fu mel ni fenn ko def. Mm-hmm. dëgg la fexe ba la ko wër la mm-hmm. ñu bañ koo jaayati ba sës ci miir ba. ah. <laughs> na cee wax nit du ñu dëkk ci. ci suufu aéroport. bii de mujj nañ ko jaay ba sës ci miir bi. kenn mënu fi ko ba doon toji kër sax ndax loolu. man nag su ma doon xelal. Hmm. Eh, su ma doon xelal ñuy politique. Hmm. dama wax ne bu ñoon am ndaa toj ndaa. Hmm. nañ bàyyi bii. nañ leen bàyyi ñun daal ñëpp ñuy fonctionné. waaw seet nag nuñ koy defee. mënoon naa nekk de xanaa. waaw dégg naa nag dañ ko bëgg a féetale armée bi xaw ma dem ni ko yooyu. loolu loolu itam Oustaz fi mu ne maa ngi doon bëgg ñëw maanaam wax nañ ko mais gëstu yi ñu ci def dafa mel ne. bari na lu laxasu ci ginnaaw ndax dégg naa fa cité des affaires ay cité yu ñu fa war a tabax dafa mel ne piste bee kii rek la war a jox armée bi waaye suuf si xam nga Sénégal dañoo bëgg suuf nag te foofu suuf si daa baax. ah yàlla nañ ci am maag yow. ah oustaz loolu ngay wax wala da ngay wala da ngay wax ne buñ saax saaxee suuf si. xam gëstu nga ba yëg léegi ña ngi koy. ña ngi koy saax saaxee kon bay ba ñu wuti ja rek. kon kay rek. nu am nga am. waa nga dëgg de loolu day ciy fexe. sama bi nekk ci coow ba suuf sa jeex te coow la du jëriñ dara. <laughs> waa nga dëgg oustaz loolu am na solo oustaz beneen bi ci des ci wàllu aéroport bi lay def ba léegi dégg naa fa itam Air Sénégal. Hmm. ñu ñu war ñu ñaari abion yu ñu ñoo ko moom. loolu daal suñu mbokk bi moo ko séenee. Hmm. sama xol bi daa sedd sedd sedd. <laughs> oustaz daa wut sedd lool. <laughs> ñun kat amoon nañ fi Air Sénégal te fa mujj kenn xamut nu mu nu mu demee. damaa defe ne. Hmm. na bee defoon moom bii du ko def. déedéet incha allah. ndax yàlla ginnaaw am na ñaari avion bay bëgg wutaat yeneen ñaar. Mm-hmm. xëy na bu aj màkk jotee. Mm-hmm. Eh, dutuñu xaaraane avion. Mm, avion yi tuuti na de mën naa dem ba màkk ay am ay direct ay. Ah? yu bees yu bees la. Mm-hmm. Uh-huh. damaa defe ne sax ñoom dañoo wax ne. mën nañoo yóbbu. est-ce que dañu mën a yóbbu incha allah kon baax na kon nañu waaj. te itam balaa ba mm. eh, xam nga mbir moom su jaaree ci yoon. Mm. te liggéeyuñ di lekk. avion daa mën a liggéey ba indi ay moroomam. loolu di dëgg la bu dee nag lu ruus lu lekk moom. Mhm. duñ dem fenn. waaw ah, loolu la de teg fa teg fa nit ngir mu defaroo ci moom. waaw duñ dem fenn. <laughs> loolu de moo ñu nag moo ñu suñu penc léegi nga dégg rek ñu ne diw wëq na kees ka mhm. dëgg la de diw milliardaire la. diw wëq na kees ga suñu mbàkk mi ñu bëgg a gaañ. wallaahi ndeysaan. te itam ñi ngay créé créé yi ñu ngi of naag. mais Oustaz loolu nag dafa mujj yàgg may seetlu ba mu yàgg ma ne est-ce que du société bi ñoo ko bëgg maanaam ñoo koy sant nit. tey ci misaal yow fa nga nekk ci conseil économique bu ñu la joxoon tey Euh, deux cent millions ne la liggéey ci nga liggéey ci deux cent millions yi ba mu jeex la nga doon liggéey nga continuer yor oto bi nga yoroon yor kër gi nga yoroon maag saaliwu ñoo naan ah sa waaye sëñ bi moom da ngay waaru yewwut ndax xaalis bu toll noonu jaar ci sa loxo ba noppi nga pare te yoroo dara dañuy jàpp ne kon ginnaaw jaar nañ sa loxo nag deux cent yi cinquante yi moom da nga war wala cent yi da nga war a këpp sëñ Cheikh mooy wax moo daan wax ne hmm. bi li penc mi teg hmm. doo jubóog sa borom hmm. waaw sama góor gi wax na lu ne nag. lu la waxoon lu la waxoon. Mm-hmm. keroog bi ne ko génnal wax mooy li ma war a wax yëpp wax naa ko jëfi leen ko. Mm-hmm. waaye loolu doon wax santaas. sëñ Mbàkke xam nga nit ci suñ penc mi dañoo dañoo légaliser nit muy tibb ci kees gi ñu ko war di lekk. Mm-hmm. buñ la jàppee ñëpp jóg. buñ la joxoñee ñëpp jóg. léegi nag buñ koy doxalee ni ba ëllëg yow ma tëb la saraayur. sunu borom di auditeur boppam. anakaan mooy jóg taxaw di défendre kenn wallaay donc loolu dañ ci war a dellu ginnaaw dëgg la def nii def ni ñu ñi bëgg jëm kanam ni ñuy def mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah? ñu jox la liggéey ngay war R4 waaye Sénégal ku la gën a sorob oto waaw oto yi gis naa xam ne dégg naa pour nga nga taal oto bi pour nga taal ko waaw dañ ci war a def euh, cinquante mille francs ci gasoil mu door la ci essence essence essence nga door a mën a contact mu takk waaw maanaam lampe brousse bi fay wala. waxuma la nga dem waxuma la nga dem kolobaan de. ah pour mu tàkk pour mu tàkk. fukki junni da ciy ne. laa <laughs> <laughs> ilaaha illallaah <laughs> kenn mësu koo gis. Ah? oustaz nañ dem. loolu ci am juróom ak juróom benn fu ñu jëm. kenn mësu koo gis yal mësu koo gis. yàlla na yàlla yërëm. wallaay ndeysaan réew mi ni mu bëree ab xaalis. Hmm. c'est des milliards. am na solo de wallaay. waaw bari nañu milliards de oustaz. bari nañu milliards mais ci milliards yooyu oustaz dafa mel ne itam dégg naa ci assemblée bi bi nga xamante ne euh, ministre bi yor wàllu finance la defe naa dem na fa ñu joxoñ ko lu jëm ci wàllu impôt yi hmm, te itam dégg naa jàngalekat yi itam taxaw ci ba tàmbalee yëngoo ko yëngal ci li ñu dagg ci seen salaire yi ndax wax nañ ne fi mu ne jàngalekat bi bi nga xamante ne trois cent mille lay fayee ko ba muy tuut danañ ko dagg ci wàllu impôt lu mat soixante mille ci salaire te nee nañ député bi nga xam ne 1 million 300 lay fayeeku danañ ko dagg moom 1500 boo moytul moom lañ koy dagg ci impôt te fan yi maa ngi gis ci télé bi ñuy tëj place yi nit ñi nga xam ne fayuñu patente ak yooyu wàllu woowu ci wàllu impôt it daa ne mat naa wax de. waaw euh, xam naa danaa ci laaj Sonko incha allah. <laughs> wax na ci lu bari de. dem seetu ko bis moom tam. Uh-huh. ndax xam nga jaar na Al Imran. ndeysaan macha allah ci daara ji. ndeysaan ñu koy ndokkal baax a baax. ndeysaan waaye ko ci laaj. parce uh-huh. que mbirum impôt. Uh-huh. mooy lii doxalum réew. Mm-hmm. waaw fiscalité de daa mel ni Sénégal moom day dox. daa war a jaar nag ci yoon. Mm-hmm. léeg-léeg buñ ko ko mënee teggil ñu teggil ko ko. Mm-hmm. zul xarnayni. ndeysaan zul xarnayni. wallaay wallaay ndeysaan. ba ñu ne ko dañ laa bëgg a def dañ laa bëgg a defal xaraaj. fa al naj alu laka xarajan. dañ laa bëgg defal xaraaj. mooy nga nuy dagg ay impôt. li nga ciy jëlee nga defal ko baaraas. waaw ndeysaan. suñ mbàkke bu ñuy dagg nit impo waaw te ñu xam ne mi ngi defar nàngam mhm. luñ la dagg nga jël waaw liñ koy dagg fii lañ koy def waaw mhm. nga xam ne foo romb tëli bu toj mhm. boo fa rombaatee defar nañ ko ndeysaan foo romb moom pax boo fa sakk nañ ko marché boo romb mu salte bu ginnaaw subaa nga fekk mu set foo romb amul marché boo fa rombee mu am ko ah yooyu nga xam ne dañ koy xalaat di ko ci def kon buñ la daggee impo doo ci wax dara waaye bu fekkee dañ lay dagg sax juróomi dërëm képp mm. du dugg fenn mm. boo muytul léegi tey nga daal di révolté wala nga mer wala nga def nangam loolu lay tekki su boobaa yooyu nag damaa xamul euh, am na daal mm-hmm. nattukaay bu ñu natt ba ku mel nii lii lañ lay dagg mm-hmm. ku am lii lii lañ lay dagg nangam pour saa loolu ngay am kon def na ci def ay gëstu ba mu gën a xóot incha allah am na solo oustaz jërëjëf ci tomb bu am solo boobu li may def nag mooy daal di génn réew mi ci xibaar yi ci juróomi ñaari minutes yi ma defee mhm. dem fële ca njiitu réewum Amérique euh, di Trump dégg naa ko oustaz ay taxawaay yoo xam ne amati na ko ci àdduna bi yu jeexi jaaxa ba yëngal xolu ñu bari ci penc bi mhm. mooy fële nga xam ne mooy baytul maqdis mhm. euh, di benn ci jàkk yi nga xam ne lislaam daf koy sago se Omar fa dugaloon l'islam ci ay jamonoom Israël. ah oustaz àdduna si danga koy coow waaye réew jullit yu mag yee ngi ne tekkati rek lu xew. coow googu daal ci la ñuy jëm. képp. waaw ndeysaan. loolu ma ci métti. <laughs> sànq ci Kaolack. Mhm. dafa benn rajo bu ma fa dal bu ñu wax. Mhm. Alfayda FM FM laaj bii lañ ma laajoon. Mhm. waaye àdduna bi ñoom Faysal di samp OCI yi. lu mel nii a taxoon. waaye aussi dafa judd rek ndeysaan rahimahullahu ndeysaan dee na kon waaw dafa judd rek kero ba mu sampee résolution yi ca nekkoon seen ndaj mu mujj mii moo ci nekkaat mhm. léegi nag nee na fii ak juróom benn weer mhm. bu yeexee ba yeex mhm. nañ fa samp drapeau ba Israël def baytul maqdis hmm? al quds def ko muy capital. allahu akbar man oustaz léegi Trump lan la lan la yebee àdduna bi duma ma wax sax jullit yi waaye lan la yebee adduna bi. lim yebee adduna bi. Hmm. mooy dafa yëg ni adduna bi dañ ko ragal. Hmm. loolu la leen yebee. Hmm. dégg nga. sëñ Mbàkke bu ñuy indi Israël foofa. waa UNEC Amnesty ñu mel ni ñoom. yóbbu leen fa daggal leen ca suufu Palestine dix pour cent jox leen mhm. wallaay di leen seetaan nag ñee seeni mbokk di leen di leen jàppale mhm. luñ joxoñ ci projet ñu def ko mhm. di def seen mbokk di leen seetaan buñ soxlaa projet di yalwaan nag yëngal ay mbuus nag looy mën ci jàkk ci wallahi wallahi ndeysaan Israël jékki-jékki na taxeet dix yokk ci dixième bi muy be toolu na kurru ci àdduna si mhm. ñu ne kurru ñu kurru ba teg ci suuf mu ne te xeet yeneen di yokk ca di vingt muy trente mhm. te waaw mhm. résolution bu ñu ma a def ci àdduna si nekkaa si signé mu ne signé ma moom ko wax de te gën trois cent vingt ñu tëral wala lu bu ñu nekkaa signé mu ne signé wu ma hmm. bu kenn defee ñu raq ndigam moom bu ko defee kenn mu si dégg Israël embargo nañ ko déedéet embargo bu toogee ba nekk mu ne te xeet diis. Mhm. daa am njaatige. xam nga léegi lan la lan la Israël Palestine dese léegi. Mhm. diis yañ joxoon ke waaw moom diis la dese léegi. maanaam ba mu leen fa dalalee jox leen diis moom diis la dese. actuellement nii nañ ko. diis la dese léegi. léegi jumaa ji ñëpp bokk wala bokk fa nga xamante ne mooy foo fañ jàpp ne moom xanaa nag moom dañoo waroon wax waa Palestine ni leen def leen ko seenub capital ndax ñoom amaguñu capital. Israël amul capital. barke Demba Maye dañoo ñëw ne ko ràpp tëj ko ne ko kenn du fi jëlee. ñu ne ci mbedd ñoom ñëpp di julli. léegi àdduna si yëpp seetaan. mu rek la di. ana julli suñu pétrole bi suñu jamaa bi suñu suñu or bi suñu armée bi ndax dañuy dal suñu moroomi réewu julli yi di bombardé Yaman ak Iran rek ak xeex terroriste. xam nga ki ñu ki ñu ki ñu defar am xelam ba mu able ko. Hmm. du xalaat ci lu mel nii. waaw danaan garaawul. Euh, Xadaafi mi rahimahullah. wallaahi def daan wax ne naka la nit di takk caaya di ragal kuy takk caaya. kooku xelam loolu ci nekkoon. wallaay wallaay. waaye adduna si fi nekk nii ki ci gën a kii daal mooy bon ñu ngi koy koo daam ne. maanaam def benn déclaration bu ndaw. képp. ba demee arab saoudi bu ñuy julli bay. bay bay ñaan bay xunóot bay <laughs> ah? salaata. fiihaa wa nangam. ndeysaan. loolu du ko réglé. wallaahi. imaam Khomeini daf daan wax ne. buñ juyoon ñun jul yëpp sunu sunu sunu sunu satala yi mhm. buñ ko sottee Israël mu lab mhm. waxin la dëgg la waaye fi ne métti la ko doonga la ñuy def <laughs> dëgg la wallaay ah. buñ ko sottee mu lab en tout cas doy na waar oustaz te itam nag euh, xam naa ne ku am am xel te nekk ab jullit tey seetlu danga am lu la metti lool te itam nit ki soo ko tooñee hmm. ne nag doo fayu waaw parce que boo fayoo terroriste nga wala boo fayee fondamentaliste nga. nga xam ne wala boo fayee intégriste nga. ne li Trump wax dëgg du yoon nangam a eh, jéngu eh, ñun yow tur yow moom nga. jeex na <laughs> ndey àdduna jaaxal na ma. na loolu nag la xam moom xam na ne àdduna si yëpp. dañ ko hmm. dañ ko ragal. ko joxoon ñu la mooy yéen nga da ngaa nar a takki bomb julli di nii rek la ñuy lu mu wax démb. Hmm. yéen arabu saoudi laa wax. Hmm. yéen ñi laay wax. ndeysaan ñu ne waaw mu ne embargo bi ngeen teg diw na teggi ko fii ak suba